baneen bi Serigne Gueye ñu ne c'est purement familial cabinet très bien ma nangul ko ñu ko wax jeune ne suis pas leur avocat défenseur dara beesu fi xoolal man j'ai un immense xoolal benn admiration bu mag ci Léopold Senghor dama judd rek dans les années soixante fin soixante début soixante dix gis ko mu nekk wëlëre sama baay seex koog baay bi seex koog ndey ji loo xam ne sañu ma ko wax fii ci télévision ma admiré ko ci dimension intellectuelle am Senghor ndeyam amoon na ñeenti wujj hmm. baayam était riche commerçant ndeyam amoon na ñeenti wujj wujj yooyu jur nañ ay doom doom yooyu ñu am ñu nekk ay frère Léopold Sédar Senghor Senghor tànn na Adrien sengoor doomu frère am la tout puissant ministre d'état ministre de l'équipement ñi ëpp koon doole ci nguuru Senghor du benn mm. Basile Senghor c'est la famille sengoor nekk na procureur la république à Thiès 17 décembre bi ñuy waxtaane yooyu jamono yi fekk na ko fa moo ma wax ancien ministre de la justice bañ ma affecté Thiès Senghor moo ma ne soo demee naa ñëw seet si yow baay bi la jur ndax c'est son compagnon de lutte tàllal ko samay loxo waxtaan ak moom di wéy lu bari ci ay xalaatam yi mooy jox yanaa d'autres qui étaient dans la diplomatie Fra Jean Collin doomam François Collin brillant IGE xoolal Jean Collin takk na jarbaatu Senghor Abdoulaye Diack mi remplacé Abdoulaye Fofana à l'information en 68 c'était Moussa Fagnès qui était directeur de l'information moom ma gën a xam sama kër baay te mi ngi fii ci fan gi dama bàyyi ma fen xoolal takkoon na jarbaatu Senghor moo jur Colette Diack bi mu tuddee Colette Senghor et j'en passe naa continuer amu ci bu mës a def nag te compétence talu ko ndax Léopold xoolal du fal ko xam ne amul compétence qui a succédé à sengoor Diouf Diouf ku mu bokkal ndey ak baay Djibi Diouf Maodo Badara était dans la diplomatie au consulat à Paris ak màgget Maguette Diouf a été son ministre Diouf mosu ko bëgg def c'est Habib Thiam qui lui a forcé la mais il lui a mais màgget Diouf brillant informaticien l'un des meilleurs cadres de sa génération c'est pas parce que yéen a bokk ndey ak baay que war nekk ministère war na ko nekk Habib Thiam était un brillant cadre. góor pire non mais may rek meegale. Hmm. Abdoulaye Wade dem na. brillant intellectuel Abdoulaye Wade c'est la flamboyance Abdoulaye Wade un être Wade lu mu def mën nga ko koo baal parce que c' est un être décomplexé Wade c' est pas la prodiga c' est la c' est pas la générosité c' est la prodigalité Wade boo ko jox léegi milliard tusbaar tàkkusaan distribué na ko jeexal na <laughs> bi mu ñëwee lu ci bari loo xam ne yaakaar nañ ne c' était pas possible su Diouf def na ko fi autoroute bi c' est Abdoulaye Wade est Abdoulaye Wade. faalewul tubaab faalewul nit ku ñuul ñëpp la bokk yemale dédoublement dans le personnage bu ko neexee nekk intellectuel pur et dur tubaab bu ko neexee nekk taalibi Serigne Touba di sukkal di ko raamal Serigne Saliou Mbacké doomam Karim Wade jiite na fi ANOCI jóge fi nekk ministre tout puissant ñu tudd ko ministre du ciel et de la terre ah Macky Sall <laughs> ñëw na jël rakkam journaliste na comme ñun qui a un immense respect pour Mamadou sa personne Aliou Sall je le dis et je le mu génnee wax man bokk naa ti ñi mu woo dama nekk nit ko transparent xam nga Pape Ousmane hmm. j'ai immense affection considération et respect pour les deux qui dirigent ce pays là Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko waaye l'esprit libre retiens une chose de ton grand frère tout le monde me parle et je prends tout le monde parce que je veux être un libre d'accord ba mu defee déclaration bokk naa ci ñi mu woo moo xool la ma ci xalaat waaye trajectoire wu Macky Sall bi mu ne Macky sàll fukki at ak ñaar jiite na ko réew ñoo bokk ndee ak baay ñetti yoon laa ko gis ñetteel bi bi Macky Sall ne du nekk candidat bi mu diriger CDC diir bu gàtt ñu jële ko fa parce que boobu adversaire am dañ ne Macky sàll kii tache noire la boo ko fi jëlul dinañ la ko xeexee mu ñàkk ko géejawaay bi mu ñàkk. c'est un complot ourdi contre sa personne moo ko tax a ñàkk j'ai ko de respect et d'affection pour mon petit frère Ahmed Aïdara qui m'aime bien moom ci biir kër Macky Sall lañ ko xeexee gis nga li muy génne nii te mu génne ko te mu indi tsunami dans un pays dans ce pays dafa junj rek lim loog yëpp génneeku ko. amaa la wax loolu parce li ko metti bari na à tort à raison mais lañ ko joxoon jàpp naa ne am na compétence bi damay dikkaat ci compétence rek. kon tey Bassirou Diomaye Faye su falee koo xam ne bokkul ak moom day ak baay de santul Faye comme moom de Ousmane sonk falul frère falul sœur ñoo xam ne dañu bokk ci entourage jox leen cër ñu jël seenu njaboot su ko compétence lalee nangul naa leen ko parce que du fi lu bees damay def rappel historique rek pour dikk ci yooyu parce que gis nga lépp loo jox nit Adam soo amee compétence nekk ministre ànd naa ci sama rakk la sama cër la su amee compétence su nekk directeur général ànd naa ci man kay li ma mënul d'accord moo nomination boo xam ne compétence talu ko mais jigi si ba amee compétence dont sax mu bokk ak ndey ak bàyyi yow gêné wu parce que mbir yi aussi ñëpp xaj nañ ci gis nga pouvoir générosité la àdduna yàggul neexul li muy yàggadi yàggadi nit da ko gën a yàggadi nit li muy yàggadi yàggadi mën moo ko gën a yàggadi wërsëg soo ko gàttandoo mu dëpp daraja soo ko jëndee mu xàcc si rappel sëriñ Abdou Lahad Mbacké waaye te mbokk mu baax ma doomu Seydi Aj Malick si borom cër bu mag ba baay bu ba sëriñ Abdoul Aziz si sama abib si déggee yow xam ne billaay sama doomu baay la moo ma jàngal ne ma Abdoulaye foofa nag sekk maslaa ba ñu maasee yàlla teg ko kenn man bokk naa ci ñi mujjee gis sëriñ Abdoul Aziz si mu sell ma billahi Mansour doomam mooy seede bi mu dénk ma la ma dénk dam lay wax ma ne xoolal man nitu yàlla fu mu nekk am na cawarte dem fekki ko dem ziyaare ko suñu mbokk taal taal yi fa nekk Cheikh Umar Foutiou Taal may gi fokk natt weesu na ko ku prédire di ko Sëriñ Tuubaa kooku ponkal la xoolal suñu waajur bu baax ba Cheikh al Ibrahima Niass cër bi fokk natt weesu na gis nga Sénégal gars yi bu ñu fooyee réew mi. Hmm. yàlla wan na leen boppam le 24. gis nga jeu politique bi ñu réew mi les acteurs moomu ñu réew mi gis nga c'est une minorité et je dis. la médiocrité qui a fait kidnapping de l'espace politique et l'espace public les hommes de qualité ñooñu lay waxal ils doivent se mettre debout pour le déverrouiller mais nag ngor ak fit su dul loolu bokkatoo gis nga Sénégal boo ragalee bokkatoo. parce que parti politique yi boo ragalee bokkatoo parce que gis nga nit bu la gënul xamu la. nit boo ko xamul boo ko rombee eey nga koy wax waaye diwa ngeen di dem yàlla moo koy def ci jaam li coon sekk daan wax aram Touré ma nga ne dem yàlla teral na ko su taral ko une belle dame une journaliste de talent qui illumine l'écran soo ci àndee xay boo ci gën a àndul xol bu dàq rek dëgg te du xolal yàlla du ci wàññi dara mooy dëgg dama lay wax il faut que les gens acceptent d'être positifs mm. Ousmane man damay wax ak yow nga invité mu ma ñëw li xew ëllëg xaw ma ko instant bi sax xaw ma ko suñu borom nee na dee xam kan la dul bett ki nga xam ne defe ne ne bu nooy dootul nooy inna batsha rabbika la sadid inna laa alaa kulli shay'in qadiir lu ma jaaxal rek damay dem ci téere bi toroxlu jullit aqan taalibe Serigne Touba aqan ba pare nangu nag may gummanti may nit ndax ñoom ñëpp ci leeru Seydina Muhammad la ñuy jël rasulullah mi gën ñëpp il faut que les gens soient debout et courageux mm. man de je le dis à mes enfants j'ai hérité de mon père toute proportion gardée parce que ñaari qualité dama façon nañu ci moom la courage et la générosité billaahi xamuma war xawma tappale xawma naxaate et je parle à un peuple boo xam ne immense respect pour ce peuple sénégalais tey yaa ngi ci entourage yu Diomaye fu may nekk ci entourage Diomaye ma ne ko ci benn entourage ni conseil non ne ko ma conseil ne ko ma tamit ci ci ci nekk ci bopp parti exactement paa yi nekk ci paa yeeg ñi yàgg ci boppu parti ñi yàgg ci boppu parti <laughs> ah dama lay wax loo xam ne Abdoulaye Fofana moo ma ko xoon ancien ministre de l'information 1960 dafa nekk gouvernement nag fédération du Mali donc avant 60 amoon na fédération du Mali gouvernement moom bokkoon na ci Doudou Thiam bokkoon na ci 60 ministre de transport et des télécommunications gouvernement 1960 boo ko xoolee di nga gis Abdoulaye Fofana bi ñu mu tuddee mais xam nga. dix ministère marto ko géré leen waaye information intérieure la ñuy wax dama woon benn bis mu ne ma Ablaye ma ne ko ah, mu ne ma booy jàpp ci lekk ci ndab mm-hmm. aram dégg loolu baax li ma lay wax ni booy lekk ci ndab te xamoo suur naa dañu war a jàpp sa loxo génn ci biti mm-hmm. xam nga am na ci ñoo xam ne daw riir wëtti Bassirou Diomaye Faye seen sët boobu waratu leen nit day mànd ci teraanga je ne jette le pauvre personne l'anathème si personne parce que dara wuyu gis nga parti socialiste. Mhm. Senghor a ko créé woon jox ko Diouf Diouf jox ko Ousmane Tanor Dieng. homme d'état remarquable ana mu tey mu ngi ca ngéejal yàlla ju koy ñaanal yàlla yàlla dolli ko leer ca barsaga mu nekk. Mhm. mu les si tànki loxoy Aminata Mbengue Ndiaye. Mhm. ma koy ñaanal di ko ñaanal sans bopp yàlla dolli ko wér. ak gudd fan dolli ko ñëpp waaye.